mbokk yi ñuy teewlu si Jàllale TV dalee nag jàmm lu bees nag daal na tukkee ci enquête bi ñeel vidéo boobee di wane rappeur bi di Dof Nday muy agressé yoraale benn gànnaay bu sukkandikoo ci xibaar yi benn mandat d'arrêt nag daal nañ ko lancé contre moom moom rappeur bi saa si ñu ngi koy recherché bu baax a baax force de défense yi ak sécurité bi daal nañ taxawal ay recherche ngir daal di koy mën a teg loxo ci mbir mi ni moom artiste bi dafa joxoñ baaraamu tuuma benn ndaw ne dafa vandaliser otowam ginnaaw ba muy amal benn concert foofee ca Ndofane mu yor benn gànnaay moom Dof Ndeye ci la réussir nag maîtriser nit kookee mu jàpp na dafa doon caxat-caxatee otoom victim bi nag jot naa ñàkk deret gu bare bari laataa ñu ko sauvé ci bile agression ca beneen bor ba victime bi nag moom dafa yor benn certificat médical buy attesté ni xam le ni dafa ànd ak incapacité temporaire liggéey du ko mën a def giiru 20 jours plainte la déposé teg ko ci table commandant bu brigade territoriale bu Kaolack ca loolee nag gendarme yi ñoom daal dinañ lancé avis de recherche ngir ñu daal di mën a interpeller teg loxo Dof nday saa si nag force de défense yi taxaw nañ temm ngir daal di koy mën a teg loxo moom rappeur bi ci nu mu gën a gaawee vidéo boobee ñuy wane ni moo doon jamati victime bi mu jàpp ne moom moo daal di caxat-caxatee otoom saa si nag mandat d'arrêt mi ngi ci ndoddam moom Dof Ndeye ci xibaar yi ba tey addu jëmale ci wàllu politique kii di Amadou Ba jamono yi nag daal na génn fasal boppam ci langu politique bi taxawal benn initiative bu yees duppee responsabilité ci communiqué gi nga xamante ne ni siiw na ci wàll wi moom Amadou Ba nekk ancien candidat ci élection présidentielle yi ñu génn mu ngi xamle ni mu ngi ubbeeku bu baax a baax ci langue gi ni mel ca loole kàddu yu mu yëkkati moo di Sénégal nag jot naa dund ay mbir yu doy waar ci ay at yi nga xam ne daat nañ ko génn moom nag xamle na ni bépp crise boo xam ne Sénégal dund na ko jot na ko traversé ak grandeur fësal na ci ay capacité yoo xam ne dëkk bi am na ko ngir vaincre bépp défi waaye itam daal transformer lépp luy opportunité ngir mu daal di sàmmonteeg liy jàmm ak solidarité muy xam ne ni ku nekk ci ñoom fare ci langue politique bi am nañ akub volonté daal di tëral Sénégal teg ko ci yoon goo xamante ne ni jàmm rek moo ciy fës waaye itam mu nekk république gu jiital démocratie bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne moom yëkkati na ko ba tey moom Amadou Ba moo di violence wala événement yi nga xam ne daal nañ ko nemmeeku mars 2021 ba juin 2023 doon na loo xamante ne ni leçon la bu ñëpp wax a jàpp ci nag ñoom ñu daal di taxaw jële fi lépp luy violence jaarale ko ci ay règlement yu mucc ay ci langue politique bi moom nag yoon gi ni mel la fas yéene jël conviction bi mu am jamono yi moo di nag ñu daal di am bët goo xamante ne ni suba lay xool ëllëg avenir u dëkk bi ak ay perspective yoo xam ne tëral nañ ko jaarale ko ci li ñu duppee nouvelle responsabilité neena nag lii doon na seen condamnation te bu fekkente ne bëgguñu bàyyi benn yoon ay démon di leen diviser ci li nga xam ne jël nañ ko wala liggéey goo xam ne fas yéene nañ koo taxawal wala sax ñooñee namb rek violence di am ci mim réew ñoom dinañ jëf seen kem kàttan ba taxawal ay perspectives ngir jàkkaarloo ak li nimel mel ñoom am nañ opportunité réaliser émergence politique dëkk ak économie bu mucc ayib ci yoon bi nga xamante ne ni jël nañ ko seen responsabilité bu yees moo di ñu daal di tëral espace politique goo xamante ne ni day ànd ak dal tëral cadre confrontation boo xam ne lépp ay idée la ak ay stratégie yu mucc ayib ay projet ak ay programme ngir taxawal société bu ànd ak équilibre opportunité bu yaatu lañ fa yéene may citoyen bu nekk ngir ñu daal di dund ci jàmm ak dal waaye ñu daal di ànd ak contentement bu baax ci lépp loo xam ne dina xew ci mim seen nouvelle responsabilité mooy ñu daal di taxawal opposition républicaine waaye itam bu ànd ak démocratie ci combat bi nga xam ne ñoom daal nañ ko yëkkati woo nañ ci nag seen bépp compatriote bu nekk fii ci Sénégal wala sax ci diaspora bi ngir ñu daal di bootu ci xeex bi nga xam ne yëkkati nañ ko naka noonu jàpp nañ ni ci ay fan yu néew wala semaine yi nga xam ne dëtmal nañ ko dinañ taxawal cadre bu yees ngir porter ay orientation yu mucc ayib lépp ci langue politique bi lay tënku soppi xar kanam opposition bi kon nag tribune bu bees bi nga xam ne moom Amadou Ba daal dina ko publier ni ki démb duppee na ko nouvelle responsabilité nafaral ci bépp pexe ak yoon boo xam ne daan ko mën a tëral ngir nag mu daal di doxal ci langue politique bi ak opposition bu mucc ayib bu ànd ak démocratie ci wàllu politique ba tey dañuy àddu jëmale ci annonce yi nga xam ne kii di Abdou Latif Coulibaly daal dina ko def ci ay initiative la nekk moom itamit lépp ci langue politique bi ni ki démb nag ginnaaw entretien bu mu seek ak suñu ñooñ yi fa Fare ci la témoin daal dina yëkkati ay kàddu waaye itam fësal anam yi nga xamante ne noonu la génnee ci Benno Bokk Yaakaar ak APR xam na ni moom Abdoulatif Coulibaly dañ ko blessé woon bu baax ci wàll wi moo tax nangu woon a toog ci boobule coalition moom fàttewul benn yoon solde ay kontam ak ancien régime bi diggante ak mu leen di reproché ni dañoo amal prise en charge bu défaillante ci ay intérêt candidature kii di Amadou Ba muy xamle ni attitude bu doy Amadou Ba lii lépp nag daal di fës ci njeexantalu campagne électorale yi ca boobu jamono moom Abdoulatif yi di xamle ba tey ni humiliation bu rëy a rëy lañ subir ci wàll wi rawatina moom amadu Ba li tax nag mu arrêté woon lépp luy activité ci biir APR benn Bokk Yaakaar da doon xaar ay initiative yu majeure lépp ci langue politique bi surtout ne benn clan mi ngi woon ci boobu boobule coalition ngir nag di xaar ay perte yoo xam ne dina tukkee ci lépp lu ñu tëral jamono yi nag moom Abdoulatif Coulibaly mi ngi xamle ni soulagement lay ginnaaw bu mu xamee ni initiative politique am gi mu fas yéene tëral dina jóg te ay góor ak ay jigéen décidé nañ daal di mëne ay activité politique ànd ci ak ay personnalité yu diñ waaye tam yu ànd ak confiance ca loolee mi ngi xamle ni ci ndox ndoxteel gi jotoon naa sóob ay waxtaan ci objectif gi ñu am muy xamle ni initiative gi ni mel dina antu te ñëpp ñu jotoon a participer ci réflexion yi ni mel Amadou Ba dong lañ xalaat ne dina mën a porter bi mbir te it dina ko assumer ànd ci ak leadership mu doon loo xamante ne ni accepté na ko ak détermination muy xamle ba tey ni ñoom ñu initié de mbir dañoo basé wu ci résultat yu scrutin yi ñu génn ak posture ba ca Amadou Ba amoon tax nag jamono yi seen initiative bu yees bi moom lañ ca jiital dañuy jeexal xibaar yi addu jëmale ci taxawaay gi nga xamante ne ni njiite réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dina ko am jàppaleen ni nag dañ ko proposé poste président de la CEDEAO loolee nag daf ko décliner bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi président de la république Bassirou Diomaye Faye profilam dafa doon idéal lool ngir daal di jiite CEDEAO ndax dina tax ba yenn ci ay crise xew ci ay dëkk fii ci Afrique mën saafara saafaraw wala réew yooyee mën caa génn posture gi mu am ginnaaw ba mu nekkee ci bopp réew mi ba tey doon na loo xamante ne ni dirigeant yu bëri daat nañ ko rafetlu waaye bi ñu ko defee bile proposition moom président de la république dafa bañ li ni mel nanguwul benn yoon bile poste xibaar yi di xam xamle ni proposition bi mu ngi tukkee ci capital yu bëri fare fii ci Afrique de l'Ouest ngir mu daal di porter bile candidature tënku ci xibaar yi ba tey pression yi nag tukkee woon na fu nekk ci ay réew fi ci Afrique ngir moom Bassirou Diomaye Faye daal di jiite CEDEAO ngir dëkk gu ci mel ni Mali ak Burkina Faso daal di mën a génn ci situation yiñ nekk waaye terewul njiit réew mi campé ci position ba tey daal di bañ boobu les propositions xibaar yi di xamle ni situation politique délicate bu xew fi ci mim réew moo pesé ci balance gi ba tax na mënutoon na nangu bi la opportunité waaye refus gi ni mel dina ubbi yoon gu mag kii di Bola Ahmed Tinubu nekk actuel président nigérian bu CEDEAO kon li jëm ci jiite CEDEAO ak porté candidature gi ni mel président de la république Bassirou Diomaye fay da koo bañ décliné ko ndeem nag ay conseillers yu bëri daat nañu àddu jëmale ci li ni mel mbokk yi ñuy teewlu si Jàllale TV fii la ñuy taxaw ak yéen jaajëfal leen bu baax si teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba si cloche de notification bi ngir dara bañ leen a rëcc ci suñuy programme